Gueye tey ñu ngi ci am ñu fi am ki nga xam ne rek moom moo di Malick Gakou ak ki nga xam ne rek moom moo di Mamadou Diop Decroix ñu fas yéene ànd ak moom ci li nga xam ne rek moom moo di nappar musical Euh, El Hadj Malick euh, ma ngi lay fay ma nga mbégte di am ci invitation bu am bi nga xam ni moom la invité. Mhm. vraiment ñu war a waxtaan waxtaan bu am solo la ñu fi tëddee jërëjëf. Mhm. Euh, waa El Hadj Malick. Mhm. li doon ragal ñi nga xam ne rek moo di waa nguur bi indi fi nga xam ne moo di ci mairie Guédiawaye bi délégation spéciale li tax ngeen ko doon ragal. du yoon parce que Amady dafa gagné. mu nekk loo xam ni lu am solo la. dóor booy Aliou Sall mu daanu buñ doon wax dañ naan 4 appuis parce que bu fekkoon ne dañ ko dañ xool ci làmb te ñaan ko dóor mu kaaw debout. parce que Aliou Sall li nga xam noonu la doon doxalee parce que dañ ko dóor mu daanu ba pare wëlbatiku di féliciter Ahmed jékki di waxee neneen mooy wane Aliou. kurfañ bi ko amee dóor attanu ko munu ko dékku moo tax muy wëndeelu di xiini xiini ak xaani xaani bi mu ñëwee ci mairie bi dafa ñëwoon pour indi ay trouble de l'ordre public nar fa indi loo xam ni jaaduwul Ahmed ci la arrêté li nga xam ni moom la ñu wax euh, mbir mi ba tey ñu ñëw ngir amal li nga xam ni moom la ñu war a amal mais délégation spéciale boobu kenn mënu ko indi Guédiawaye parce que Guédiawaye ñoo tànn Ahmed fal ko mu duma rakku président de la république ba ci ko ndara kaam Sénégal yëpp teg ci seen bët pour door ko mu daanu loolu nekk lu am solo parce que Aliou dafa xeeboon Ahmed mm. te xam nga ku ànd ak gàkku ku ànd ak gàkku gàkku jiital la. mu yéen koo bëreel da nga koy daan. yow mi war a euh, war a nekk a a nekk à la place de. Euh, Ahmed du ma xëccoo. du ma xëccoo mairie bu Guédiawaye may ma du ma xëccoo mairie bu Guédiawaye parce que nag man dama ëpp mairie bu bi laay laaj. kuy laaj réew ak kuy laaj mairie du benn. Ahmed sama rakk la sama poulain doo na ko mu daanu lii mooy wane ni incha allah 2024 damay door Macky Sall mu xalaw. yow mii yow da ngaa yow Ahmed Aïdara la gën a ëpp buzz. Euh, moo tax xamoo ma jeune. géej bi li nit ñi dem di voté dañ ne nañ voteel euh, le petit frère de Gakou muy Ahmed Aïdara le petit frère de Gakou ñëpp xam nañ mooy Ahmed Aïdara ñëpp daal di ne ban la ñu ne. bulletin le petit frère am nag problème Ahmed Aïdara loolu problème àddina ay bëri bëjëg làmmiñ a dëkk léeg-léeg nga mat sa làmmiñ te du tere bu dëxin ñëwee nga ànd mi waaw kon dañuy àndaat Ahmed sama rakk la sama lépp la d'accord voilà loolu di lu am solo donc Ahmed sama xarit la sama rakk la sema mon frère kon ni nga xam ne noonu la doxale doxalin bu am solo la en tout cas jox naa ko mairie Guédiawaye incha allah dina liggéey te dinaa ko jàppale dinaa ko booleeg ay polonais ñu jàppale ko polonais polonais polonais polonais bu ko jàppale waaw maa nga fa xam nga loolu dafa am solo. sàmm jikko yi ndax yëpp sàmm jikko yi waaw ñoom laay ay eh, eh, waay Mamadou Diop Decroix dégg nga li gars yi wax. Hmm. Eh, nee nañ yéen da ngeen a bëgg dem ci gouvernement bi de. <laughs> xam nga loolu waxi caaxaan la parce que mënul nuy opposé wu nekk fi di bañ. di bañ ay ati at ah, xëy xëy daal ne dañuy ànd du du wàdd parti dem la ah, parti démocratique sénégalais dañoo àndoon lig lëngoo uh-huh. waaye dañ ne lëngoo neex na waaye koo bàyyi mu dem ak mbaggam duudu uh-huh. euh, du mooy jël sama mbagg mii di ko dugal ci Macky Sall ak lu mel <laughs> euh, donc euh, yaakaar naa ni loola ku koy wax day wax wax ju ko neex waaye nun pare wunu ngir ànd ak président Macky Sall ndax dañ koo séqut ak moom ah mënut a liggéey euh, amul xam-xam. li mu dese président Macky wax de. li mu dese bariwul. est-ce que waxaale xaju fi. de ma merci beaucoup. Euh, sëñ bi euh, man sa njëg sa njëg ngay diisal rek. di jafe-jafe man sa njëg man aw ma prix. parce que ku ma xam-xam ni. Eh, Diop de Croix bi mu nekkee Diop de Croix ba nëgë ni ci mbaj la eh, ne. bu la ci xeex ak xëcc xaacu. waaw loola. ak dugg biir RTS xam nan ko. Mhm. fii laa fi ba. RTS eh, ba biir RTS. gars yi dañoo yemoon ci buntu ba day wane ni maa fi def lu kenn deful. loolu ba mu yàlla def na ko moom. donc bu nu fat mais élargi euh, euh, dama lay laajte dama lay wax rek nag euh, fi mu ne nii bu la président Macky woo woon hors dañuy waxtaan nii rek. Hmm. lépp fay nag te kenn nekku fi ñun ñu neen na donc dama lay wax ni la tey bu la président Macky Sall woo woon. ni la sa boy bi mbaa du yoole. du yoole kenn ma Omar kenn déggu la. Omar bul yoole. ba xam nga coono day am. <laughs> position bi yàgg nañ ci. liñ ci dajul amul <laughs> euh, depuis 2012 ah gëj a mos kii tuutu pale kii damay romb fële rek lu ne daj nañ ko liñ yoroon jeex mhm. dajale condamné yi ma dajale woon compte yëpp judd na sa jamonoy Ablaye Wade xam nga man daawuma def li gars yi di def di làq ay koppar ak loolu. Mm-hmm. lépp dama ko doon jël rek di ko teg ci yoon. waaye fi mu toll ni wax dëgg fa yàlla euh, saak xama lakk na. Euh, duut wàdd nag démb sax woo man ma naa ko waxaale ma. <laughs> Doudou Doudou Gueye. mën euh, naa ko. xam nga appel di. waxtaanu biir la daal waxtaanu biir la. xam nga <laughs> nee naa ko na ma waxaal parce que aussi tamit euh, mhm. yi war naa doon parce que ci lii mu dese bariwul waaye mënees naa ñamas tuut parce que Sonko Sonko la ne Sonko bu ñëwee mën naan sensé système bi ba duñu dugal mais Sonko sax dañ koo déggatul nag ndax dañ ko joxee kii ba tey day liggéey day liggéey fi mu nii euh, ni mu ameem xëy nun na nan salaire député bi doyul. te député gi li ci def barewul li ci des ñetti weer ci des ñetti weer ci des te nu deful ndànk dan dan nuy tëbal euh, remplacer nu loolu man damaa bëgg nga wax ak Macky Sall sa kii a ngi ne waaw waxal ak président Macky euh, la caméra baa ngi ne waxal ak moom après subhanallah kon direct déedéet du direct. Hmm. dañ la koy waxal après man maa ko jox ci pet. whatsapp waaw whatsapp nga koo koo yor nga numéro. parce que man daf maa filtré ma envoyé ko kii mu bloqué ma. waaw xam nga bi mu faloo rek la nu bloqué. Babacar jox ko ma wax. yor ngeen kii bi nu xasee mhm. di nga ko di ngeen ko. dàq waaw jox ko ko ko waaw. nga mhm. ah, kon président Macky man la Decroix. waaw xam naa ni fàtte nga ma waaye noo ngi si opposition ba tey daan yëngal waaye fi mu toll nii moom ni ngi lay wax rek ne la daal kii moo wax pour ma envoyé la ko <laughs> waaw loo yor poste directeur PCA jàpp ci conseil eh, économique social fu ma dugg ci côté yooyu euh, lu ma ci am rek baax na waaw fi sabili laay rek ci social bi laataan ñuy dugg ci weeru koor bi ndax mu mën a ximmili ko <laughs> xam naa ne yow nag euh, loolu doo ko bañ ndaxte nu nag yow yàgg nanu <laughs> euh, Diop Decroix ñu ngi lay nuyu di la wax baay baay eh, boo ko liiree nga nga débloqué waale ma jërëjëf <laughs> waaw xanaa waaw wax na dëgg nan na ko gili gili <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf hmm. euh, kontaan nañ torop waaw merci beaucoup jërëjëf Mamadou Diop Decroix yaakaar naa ni leer na li nga wax hmm. te président yi mi ngi lay seetaan parce que ah. Walfadjri mooy leeru jamono la voix des sans voix fii na ci antenne waaw ah. antenne dëggantaan direct kay yaa ngi direct nga def wax dëgg direct nga def wax dëgg yàlla macha allah. Ah, te loolu <laughs> waxu politique la rek <laughs> waaye ñun fan ne woon lan ne ñun dara dara lu nu leen. nawet boo ko jox naba maay. voilà jërëjëf jërëjëf Mamadou Diop Decroix donc mun ñu soobu woon ci li nga xam ne rek moo di sunu liggéey di Taku Show ñoo àndoon moom moo di Khalifa rapport ci India Show ànd ak sunu sponsor leader bi jóge fa daal di dem école des jeunes mariés ak Didi Diouf la ma moom moo di neppan musical may sargal caméraman yi ku ci mel ni Babacar Lo de Louga ak ki nga xam ne moo di Keba l'homme de Niakhar mu di Babacar ñu ngi koy nuyu lu bare bare bu yembee nag ba nit ñi dina xool ni ku ci mel ni ki nga xam ne rek moo di Jacques Oumouane Prérara ak ki nga xam ne rek moo di Abdou Top bàyyi Fatou Djibi di sargal képp ki nga xam ne rek ñu fi ñu ngi ñuy bàyyi xel rawatina ajaratu béti mbub siiri de calaw suba incha allahu rabi dina fi teew ci alxamis ji de wax lu noonu ñu ngi jéggalu ndax nit matul te seen mbégte moo nekkoon ne xam ne rek moo di suñu yitte <laughs> Keba wax naa ko <laughs> jërëjëf Lobugaz jaar Diarra Bousso mi sàmm kaaraange kiliyaan bi Jolof ci Chicken di ganaaru ëddëkaay yu saf yi ñoo leen doon may seen émission Taku Show bonjour comment ça va et comment va la santé. aouzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana muhammadin ibnu abdallah wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin mbokki jullit yi gannaaw buñ sante yàlla suñ borom subhanahu wa taala julli ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen di nuyu rawatina yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci réew mii di senegal ak ñu nekk ci bitim réew di ñu bàyyi xel di ñu seetaan ci waxtu wii ñoo ngi am mbégte bu kawe kawe nag ci jàkkaarloo ak yéen ngir fas yéene waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum faju muy maladie yi nga xam ne dañ koy